asalaamaaleykum papa nuyu naa la. waaw ah, ñu leen di sant baax ñu leen di fay ñu leen di siyaare lu bare bare bëri. ñu ngi lay fekk fii tey Tilène euh, fekk la ngay nekk jaaykatu kafe ak koor gi nga xamante ne noo gisee ko noo dundee weeru koor gi ak jaaykatu kafe. ah weeru koor xanaa sant yàlla bu na ko yëgale alhamdulilah rabbil alamin te lépp luñ ci jàmm yàlla suñu borom nangu la ko jaaykat yàlla wax dëgg yàlla yemale ko yomb dina xaw a tane daa seer jar gi seer bala nga saaf def jar def ñu ci war a def projet ko mën ci am daa day xaw a jafe lool ndax yi dafa seer waaye ñu ngi sant yàlla luñ ci am lu mu néew néew rek ñu mën cee susuko kon jaaykatu café bi daa yokk dafa gën a cher dafa gën a cher dafa gën a cher avant koor gi waaw ba avant koor gi ba léegi dafa seer bu toujours bu koor gi waaye jublu day gën a day gën a seer ndax ñaar gi day yokk café gi yokk moo tax maman rek ñu ko jaay ne ko man da nga ko yokk boobu ñu ko doo ci mën a am dara moo tax kilo bi ñu ngi ko jaay ba 3000 ba 2800 2500 daal ci la yem bu dee prix détail prix en gros nag moom mën naa dem ba 2300 2250 loolu daal la ñuy jaay fii. kañ nga commencé jaay café gi. jaay café nag dem na ba léegi maa ngi si dem na ba léegi maa ngi jaay café dem na ba léegi maa ngi si waaye xam naa fii si Petersen maa ngi fi commencé jaay 2009 2009 laa ko commencé jaay. ba léegi tamit amoo ci gisoo ci ay gis nga ci avancement wala amoo ci ay gàllankoor. waaw am na ay gàllankoor nag amoon na ay gàllankoor yu bare bare bare ndax gàllankoor yi toll na jamono yoo xam ne café gi wax dëgg yàlla séerutoon moog jar gi boo jëlee kay jëlee jar boo jaay mën ci am dara waaye léegi lépp dafa seer da nga jaay lu daanaka yow ci mën a am dara loolu daal ma nekkoon yaa ko léegi dafa seer lool wax dëgg yàlla. ñu ngi lay jaajëfal di la sant di la gërëm. waaw baax na jërëjëf maa ngi lay sant di la gërëm yàlla na seen liggéey barkeel jërë ngeen jëf. fay naa la soxna si. tur beeg sant bi. Ousseynou Diop. tey ñu fekk la fii si leen gis la ngay jaay li nga xamante ne mooy nit ñi loolu la ñuy gën a soxla ci weeru koor nan ngay dundee weeru koor gi ak njaay mi ak client est-ce que client yaa ngi ñëw normal. fii ci PSN ñoo ngi sant yàlla bu baax. ñooñu sant ak waaye nag ñaa ngi koy seen yëpp xam lan mooy seen problème lañ doon jënd daaw ñuy jëndee ren daa bokkul. li ñu ñuy jëndee ren bokkul la moo tax. moo tax wax dëgg yàlla que ren bu baax dafa seer wax dëgg yàlla dafa seer lool. la ñuy jooy ñun ren ñu wax dëgg moom nag wax dëgg instant ñu ngi jaay nag yàlla ñu ñu ngi sant yàlla bu wér mais rek mooy problème bi waaw base moom moo seer waaw. waaw client yaa ngi ñëw mais bagage dafa seet mënuñu ñoom parce que ñu ñuy wax daal dañuy dem jënd bagage ñu jënd facture bu seet la ñuy jënd boo ñëwee dañu daaw ak ren ñoom dañuy bañ loolu daal mooy suñu problème ak ñoom loolu mooy suñu problème ak ñoom. xale yi nit ñi daal gis naa ne jëndatuñ ci Auchan dañuy ñëw ci marché parce que naanaam marché bi moo gën a yomb yéen bu ngeen waxee yéen a gën a seet la kon est ce que gars yi duñ dawaat ci Auchan. waaw xam nga maanaam kii moom. problème mooy Auchan dafa am bagage yu leen gën a waaw am bagage yoo xam ne wax dëgg ñu ñu ko gën a yombale foofu boo ko sax client sax dañuy ñëw ñu ne Auchan lii lii nangam naa ko jëndee pour lan ngeen koy jaayee lool du ko xañ ne bagage yee bokku rek Auchan moom dañuy nax gars rek. ah. de ñoo gën a yombal Auchan moom am bagage yoo xam ne Auchan yu gën a yombale am yoo xam ne ñoo ñu ko gën a yombale waaw. ñu sant yàlla rek ren moom dëkk mi wax dëgg yàlla nam doxee daaw ak ren bokk dëgg yàlla waaw ñu woon daaw ak ren bokk parce que ren moom li ñu gën a sonn mooy sànc bi ñu tëj mu ñu gën a sonn Petersen waaw parce que aw yoon amut. mais moom mais moom daaw moom xam daaw kii dafa amoon bi yàq na sax mais yoon amoon na mais ren moom yoon moo amul ki ñaay jaay pour dugg moom amuñu ko ñu gën a aussi loolu ci la bokk. yoon bi a jaay daal foofu lañ bloqué. voilà moom moom fi client pour jënd moom fa dañ ko fat déedéet client yi gën a jaar moom pour dugg moom dañ ko fat mais nag sant yàlla rek waxante sànci liggéey tey ne bu àggee day gën a baax rek. moom moom da ñaan yàlla liggéey bi àgg rek ci jàmm ak salaam. la jàmm. merci Adja jërëjëf ñoo far. Euh, maa ngi fi maa sant bi. Ngoone Seck. ñu fekk la fii tey fii di Tilène gis la nga nekk euh, di jaay euh, muy tàndarma li nga xamante ne moom la ñuy gën a soxla ci weeru koor gi nooy dundee weeru koor gi ak njaay mi ndax mu ngi dox wala. ah sant yàlla rek waaye njaay mi tàndarma ji moom seer na moom ndax démb ñu ngi jëndee. dix mille ñu ngi jëndee dix mille six mille junne ñaar téeméer ñaari junne ak ñaar téeméer moom lañuy ñuy jënd lii ñett ñetti ñaari junne ak ñetti téeméer. est-ce que njaay mu ngi dox wala ni client yaa ngi ñëw comme ni ñu doon ñëwee. ah tuuti tuuti rek nam doon ñëwee bu njëkk moom ñëwee wutuñu moom waaw ndax nit ñi dañoo ragal. njënd mi ndax par tuuti tuuti la ñuy jënd ndax daanaa xëy jaay la ma ñeent fukki kilo ñaar fukki kilo waaye bi ma xëy ak léegi dix kilo jaayagu ma ko fi jaay mi moom doxut moom. Ah, tamit dafa cher. dafa cher looloo tax ñu ñu bari nanguwuñu koo jënd di ko jaayaat ndax man moom laay liggéeyee koor gi ndax yenn yenn liggéey yëpp man mënu ma ko si koor gi bii laa mën a jaay. dem jënd ñëw toog si sama place di jaay. Ah, weeru koor ñu nii nan ngay dundee weeru koor gi. si dunde si nekk. weeru koor gi. ah xanaa de maa ah maa woor kay. maam bi est-ce que yaa ngi woor. ah damay woor de. su ma xëyee lu ma jaay. joxe sa sama doom dépasse mu dem toggal ma ndox waaw. ah damay. man lay woo. du ma si doog benn bis de. ma ne damay woo ah man nag mag laa. man ma am ay sët yu mag doon magoon démb sama sët sama rom la xam nga ne ñëwee wu ma bañ a woor moom oh, damay woor de. xamante ne duñ woor comme ah, <laughs> man day mère de ngoone de moom day woor moom. woor di jaamu yàlla toog fii nekk si sama liggéey lu ma si yàlla war sa gële ma def si njaboot ñoo leen ngeen jënd si nag tàndarma maman bi maman nee na tàndarma bi dafa cher te gisul client yi. waaw gisuma tey client moom waaw ndax tey jënd naa ñeenti kees nii waaye gisaguma client borom daaru musti kaay jënd tàndarma. waaw ñu ngi lay jaajëfal. waaw kii jërëjëf yal kooru jàmm. waaw leen yàlla defal jàmm. ci daraje Rasulullah li ngeen di liggéeyal na ko buur yàlla barkeel barke borom Touba. salaamaaleykum noo def. maaleykum salaam na woon. yaa ngi si jàmm. ñu jàmm ba. yaa ngi cool te ñu fekk la fii euh, Sane Sandaga nga nekk fii di Amblé yow nga nekk xale bu góor en tant que xale bu góor lan ngay dundee koor gi. lu may. lan ngay dundee koor gi wéru koor. waaw ah, ñun moom koor gi moom yaa ngi gën a xam instant nii mooy loolu quoi koor gi moom defuñ ci yaakaar dara mooy loolu. yaa ngi woor. non xalaatuñ ko. àll ba. non mooy loolu moom koor gi moom. liggéey bu metti bi bagage yi ñuy yóbbu fii ñun moom xaaj yëpp du ñu wóor daal pour ñu wax la lu leer xaaj ñii xaajul ñu wóor. ñu mag du ngeen wóor xanaa du ambale rek moo tax du ngeen wóor. non bagage yi waaw mënuñu boole ak liggéey ak wóor ah, nit ñi ñu ngi liggéey te di wóor loolu yàqul liggéey yàqul dañuy jugee suñu dëkk ñoo fii mais bu dee suñ dëkk lañ nekk moom loolu normalement dañuy woor mais bu dee dañuy ñëw fii nag pour liggéey non loolu moom mënuñu woor moom. yow ñaata nit ñoo fi jóge Dakar ñi fi dëkk bëriwul ñun ñii ñëw ñu ñun ñu nekk si place yëpp duñu woor. ah place bi kon duñu woor. duñu woor daal duñu woor duñu doo woor yow. léegi bu amee jabar nan ngay def. loolu garaaw loolu après la quoi. yow sa gel bu loolu dem woor nit da la moo la ko du liggéey liggéey kese liggéey mu la woor normal lan moo la non ko boole ko liggéey bi daa métti métti na waaw métti na kay waaw ah. Ah. est-ce que du arrêté liggéey bi tam moo koor gi yàlla loolu tamit xaw a métti si ma day métti day foo nga bàyyi koor gi daal foo nga bàyyi koor gi moom waaw ah. yàlla bu la téye waaw loolu après kon maanaam ñi nekk ci waaw ñu may gis yëpp ñu war. noonu de. waaw maa fi. yaa ngi si jàmm. maa sant yàlla. tey ñu fekk la fii ci centenaire euh, peut-être seen euh, nga nekk xale bu nekk ndaw di jaay ak koor gi nga nekk jaaykat bi nga xamante ni da ngay jaay ay jiin nooy dundee koor gi ak jaay est-ce que client yaa ngi ñëw noonu. waaw sant yàlla parce que client yi ñuy ñëw ndànk-ndànk mais ins bii nii dafa mel ni rob yi. ak euh, jàllab bi la génne la gaa yi gën a soxla daal waaw mais jiine na moom ndànk daan xam naa ci kanam la quoi incha ci kanam ci kanam la jiine di gën a kii quoi la gën a taw feexe waaw incha allah. nooy dundee sant yàlla ñu ngi koy woor ñu ngi koy meñcee daal. waaw maa ngi woor hmm. waaw. moo def kooru yàlla tere hmm. <laughs> waaw. Ndiaye mi à propos kooru daaw ak kooru ren ban nga gën a gis ne moo gën a doon waaw ins bi xam nga koor gi deux jours doogu mënoo goo xam carrément que ne jot bi ni muy demee quoi mais sant yàlla daal waaw bu mënee ni daaw moom dañ gën a sant yàlla mais lépp waaw macha allah quoi waaw. mu lay <laughs> bokkoo ñun ñëpp. si barke sëñ Ba.